génn naa fi génn naa fi le plan national mais album bi liggéey naa trois ans et demi pour génne ko sur le plan international ça fait dix ans que génnewuma benn album international génne naa ay disques bari mais bii moom pourquoi c'est important parce que buñ ko bu ma ko bu ma ko tuddee bu ma ko tuddee Time for Africa c'est parce que je crois que l'Afrique doit dañu war a delloosiwaat ñu delloosi li ñu moom ñun ñu bañ a bàyyi ñu ñu su justement ñu bàyyi kenn di ñu décider li nga xam ne ñu ñoo ko moom loolu moo waral Time for Africa parce que l'Afrique aux Africains je pense que suñu ay problème ak suñu ay richesse ak suñu ay culture ak suñu doxalin ak suñu ëllëgu ëllëg bu Afrique war nañ ko waxtaanee ñun entre africain waratuñu bàyyi kenn kuy décider à notre place donc loolu mooy Time for Africa ma médité ci nag souvent autour de mes voyages pendant des années waxtaan ci ak e ay xarit yu bari mel ni ñoom Salif Keita ñoom Alpha Blondy ñoom Angélique Kidjo ñoom Manu Dibango ñoom Loco Akanza su xarit yëpp rafetlu démarche boobu man ma ma ma ni léegi il est temps nan la ñu mën a wax yi parce que dama rappelé benn phrase bu nga xam ne dañ ne tant un homme pour chanter il nous sera permis de d'écouter les messages des artistes artistes yi fi mu nekk nii am na message yu bari yoo xam ñoom ñoo ko war a véhiculer à travers le monde ñun kilifa yooyu ma toogal dañ ma ni ñoom am na foo xam ni fa maanaam politique yi di yam ñun artistes yi mën nañ fa yóbbu mën nañ ko yóbbu fu gën a sori fi ñu ko yóbbu ñoom do time for Africa. Il est temps que aussi nous éveillions la conscience de nos dirigeants africains de prendre conscience ci li ñu am en Afrique ici ñu bañ a bàyyeti ñuy dicter quoi que ce soit parce que les Africains aujourd'hui appartiennent à l'élite dama dem au Rwanda toog man ak Paul bi ma toogee moom dañu waxtaan li ma gën a marqué ci moom mooy cet esprit de panafricain waaw xam nga ñuy wax euh, tout dernièrement ci biir album bi aussi dina wax nañ ci des thèmes comme Ali muy euh, hommage à grand wax nañ ci euh, Time for Africa mooy li ma leen di nettali nii wax nañ ci aussi Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul wax nañ ci benn morceau ñuy wax ay Dio dédié à Joe Wakam pour le travail qu'il a fait au niveau culturel et artistique wax ci aussi naturel mooy inciter à nos nos femmes là ñu bañ a euh, dépigmenté wu ñu bañ a xeesal ak affaire yooyu quoi donc wax nañ ko ci si aussi ci album bi Sénégal booloo pour que l'unité reviennent à la raison c'est-à-dire il faut que ñun Sénégal ñu mën a nekk ensemble booloo di waxtaan comme ni ko suñu maam yi daan defee parce que le linge le linge pas sale mais le linge simplement c'est toujours lavé en famille en Afrique donc loolu moo tax ñu ne waaye boobu ñuy wax Sénégal booloo tirailleur muy dama tirailleurs tirent ailleurs et pas sur les enfants des tirailleurs parce qu'il est que ñu am esprit aussi ne tirailleurs liggéey boobu ñu def ba ñu demee ba ñu ba ñu ba ñu leen fa fekkee ñoom liggéey bi ñu def c'est très très donc war nañu aussi delloo njukkal suñu yooyu ci liggéey bu rafet bi ñu def bu màgg bi ñu def boole ko fayda ak jot donc loolu mooy tirailleurs Empire, moi, une chanson sur l'Empire des enfants, dont je suis le parrain depuis 17 ans. Et Dieu sait qu'on en a vu de toutes les couleurs. Donc, comme dit la chanson aussi, les rues ne font pas d'enfants. l'Afrique a toujours rigolé l'Afrique toujours fulla ak fayda li ñu am mais reetaan dafa am solo ci doomi Adama donc euh, way bi moo koy bindee dama xool waa ñoom ñuy wax Kouthia Kouthia man bu ma ko raté man bu ma ko seetaan bi sax su ma doom yi dañ ma koy enregistré le soir bi ñëw et je le garde parce que Kouthia dafa am importance ci ci suma live man ni ma gisee daal ni ma koy doxalee di ma foloo ma reeloo ma bëgg nag mu bàyyi xel ci moom parce que foo ak ree lu am solo la ci donc euh, jàmm titre bi ci topp mooy jàmm mooy bi ma nekkee xale dama daal way ay kelengeti kelengeti leng dama am kalaam leng et tout ça ba bu ma doonee ba toll ci âge bu ma moi donc ma ma bind woy woowu ñu wax Diana Boucala tout ça c'est art for Africa pour man donc euh, way bi nga xam ni excusez J'ai oublié d'éteindre mon portable. Donc, euh, j'en étais à, à civisme. Civisme nag moo mooy moo moo tax nag morceau boobu c'est très important parce que dama gis waa mairie Dakar moo tax d'où leur présence ici ñu wax ci set setal et euh, ma ne war naa lëkkaloo ak ñoom pour euh, ñu setalaat parce que ñun bi ñu nekkee xale euh, suñu yaay yi dañ daan lay suuf si yëpp nekkee xale on avait quoi sept huit ans suñu yaay yi daan bale kër yi d'abord Euh, avant ñuy dem même marché di duggee ak affaire yooyu donc aujourd'hui il est temps que ñun sénégalais aussi ñu ñu bàyyi xel ci affaire set jiital ko sur tous les plans parce que éducation l'éducation c'est la seule et unique solution j'ai remarqué que Sénégal dañu xaw a dañu xaw a bàyyi tuuti affaire éducation te set setal boobu boo setul ci sa yow doo mën a set life donc moo tax euh, bi ma gisee waa ville de Dakar def geste boobu def projet boobu ça m'a beaucoup beaucoup interpellé ma ni donc euh, d'où leur logo ci album bi parce que civisme man dafa dafa important ci man donc ci way bi maa ngi ciy wax ne centenaire mooy suñu boulevard bi ñu naan fête suñu indépendance mais boo fa jaalee boo fa jaaree tey sa xol dafay jeex quoi ndax euh, xam nga si anarchie là donc anarchie boobu war nañu mën a lëkkaloo ak la mairie de Dakar pour dindi fi ana dindi fi anarchie boobu au service du développement du Sénégal donc moo tax ma bind civisme ah donc Toucolor ça me rappelle ma première copine qui était Peul ah Awa Diallo la tuddoon donc qui était Peul une belle Peul ma bind ko ne ko même en vieillissant je me rappelle de ta beauté je me rappelle de toi voilà kooku mooy Toucouleur ah Déo c'est une chanson qui me parle beaucoup parce que il y a un, grand musicien qui s'appelle Harry Belafonte qui est un très très grand musicien afro-américain qui a dit aux, aux dans les années je vais vous chanter une chanson bu tudd déo mooy le jour qui arrive déo boobu daf ko bind ne les blancs là laissez partir mon peuple loolu mooy daylight come on we want go home voilà nañu bàyyi suñu peuple sama peuple Afrique afro-américain ñu dellu seen dëkk muy Afrique bii ñu jóge ñoom donc euh, lébu gi mooy pour ma communauté lébu man la ci way bi ak Mbaye Dièye Faye ak Maxu Lébu gi ñoo ko def parce que man ci Lébu yi laa dëkk te Lébu dañu am benn spécificité mooy fier d'être dans l'eau toujours waaw fier d'être dans l'eau toujours waaw ñoom loolu mooy définition man pour man Lébu yi et ils sont de ce qu'ils sont donc euh, kooku mooy Lébu pêcheurs mooy nappkat yi euh, on continue sur la même lignée de de Lébu gi pêcheurs dama ko bokk nag suma dama def benn duo am importance ci man man ak Wasis Diop parce que ñëpp ñu ngi depuis des années dañ may wax mais lu tax ñu def duo ak ak Wasis Diop donc là il est il était temps de ci Time for Africa bi ma bind bind morceau ak moom. muy péché donc après le seizième titre c'est Nobel Nobel mooy bu bu ñu strac rek la bu ma leen bu ma leen bàyyi noonu parce que Nobel bu ma koy génnee je me rappelle que ñu bari dañ ma dañ ma doon wax ne ma non fii dafa am muy doxee euh, boo fi génnee musique gospel wala ay musique de mu am chorale ak yooyu ça marchera jamais ma xam nga dama bëgg défi quoi may leen ah vous allez voir que je vais le moi bon mu bind Nobel teg ko ci marché bi bon voilà c' est devenu euh, boobu c' est que c' donc euh, euh, loolu mooy donc contenance ko album bi quoi léegi nag bu ma leen gërëmee sant leen bëggee leen di leen wax nag album bi yéen yéen a a def en sorte que mu doon un album dans les archives de la musique ici au Sénégal parce que suma maison de disque bi di France ça fait deux semaines deux euh, ça fait trois semaines astafurlah ñoom ñu yor ma foofu ki ma doon woo nii mooy suma agent en France léegi la ma doon woo euh, daf ni ma bi génnee ba léegi bi mu génnee en France on va faire énormément de plateaux de télévision muy waaye euh, France 24 euh, France 2 Europe 2 France Inter euh, ak yeneen télévision yu bëri ak yeneen i presse yu bëri quoi donc ça je suis content parce que album bi déjà ça commence à à à à parler beaucoup beaucoup en France donc bala koy français yi nag di approprier wu dama bëgg nag yéen ngeen approprier ko d'abord parce que vous êtes mon peuple vous êtes ma fierté. yéen ñii yéen mën a def en sorte que bi bii tudd Time for Africa ngeen saaw ko d'abord en Afrique ñëpp bàyyi ci xel d'abord en Afrique bala muy egg en Europe donc moo tax ma leen ma leen koy dénk yéen ñëpp di leen gërëm nag di leen sant di leen wax bismillah rahmaani rahim jërë ngeen jëf. Comme j'ai beaucoup voyagé à travers le monde, je me suis rendu compte que les Africains ne parlent pas euh, beaucoup africain. Il faut qu'on qu qu s'approprie notre propre histoire. On n'a plus envie que notre propre histoire soit dictée par l'Occident ou par l'Amérique ou, ou, par l'Asie. Aujourd'hui, le Time for Africa, c'est ça. Il est temps, en tout cas, qu'on que, qu nous laisse, nous, Africains, régler nos problèmes en tant qu'Africains. on peut les régler parce que tout est issu de là. Je vous dis que j'ai beaucoup voyagé à travers le monde. J'ai vu énormément de gens dont le rêve, c'est de venir en Afrique. Donc, do time for Africa. Il est... Absolument. C'est un appel vers les valeurs africaines, vers les valeurs intrinsèques de nos aïeux, parce qu'on nous a légué, on nous a donné toutes les forces. Comme disait Cheikh Diop, tout est venu de l'Afrique. Tout est issu d'ici. Donc, il est temps que, nous en tout cas, on est au Sénégal, il est temps que les Sénégalais, et regardez tous les continents qui viennent vers le Sénégal. Aujourd'hui, quand je vais à la pointe des Almadies ou dans, les, dans certains hôtels ou dans certains endroits euh, où il y a la culture qui, qui retentit, ici, euh, au Sénégal, je vois énormément de touristes dont le rêve même, c'est de s'installer ici. Parce qu'ils savent que maintenant, de time for Africa, le temps est à l'Afrique. Donc c'est ce que je, c'est ce que je dis dans cet album-là. Mohamed Ali. Euh, j'ai eu, une relation particulière, bien sûr, comme toute l'Afrique a une relation particulière euh, sur Mohamed Ali parce qu'il a toujours combattu. Ce qui m'a beaucoup marqué chez lui, c'est qu'il a dit que je ne vais pas à la guerre pour tuer des gens qui ne m'ont rien fait. Et ça, c'est une valeur africaine. Parce que Africain du Togne. Africain du Togne. Donc, euh, Bimakol et Mohamed, quand j'ai vu Mohamed Ali dire qu'il ne va pas à la guerre pour tuer des gens qui ne ont rien fait, Il est revenu, il a été en prison, il a été euh, euh, démis de tout, ces, ces, de tout. Alors moi, c'est des valeurs auxquelles je crois. Et Mohamed Ali a toujours prôné son africanité. Il a toujours prôné euh, l'afro-américain qu'il est. Il parlait toujours aux Africains. D'où il était Cassius Clay, d'où il, était, il est devenu musulman, il s'est fait appeler Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohamed Ali. Et ça, c'est quelque chose, je ne pouvais pas faire un album qui s'appelle Time for Africa sans rendre hommage à Mohamed Ali. Donc le, la deuxième personnalité, enfin troisième personnalité même, euh, c'est Joachim qui, a, qui, qui, à mon avis, culturellement, artistiquement, a beaucoup à apporter à notre pays, le Sénégal. Et je me devais, moi, de, de, dans le Time for Africa, de, de, de, de lui rendre hommage là-dedans. La, la, deuxième, la, les deuxièmes euh, euh, personnalités que j'appelle les tirailleurs sénégalais, c'est très important pour moi parce qu'on ne, on ne se focalise pas assez sur les tirailleurs sénégalais. Et je me suis rendu compte que les tirailleurs sénégalais ont, ont sauvé ont sauvé non seulement la France, ont sauvé une partie de l'humanité. Parce qu'ils ont été partout. dans tous les combats. Ils ont été là quand c'était l'heure. Ils ont été là quand ce n'était pas l'heure. Ils ont simplement été là tout le temps pour, pour combattre l'injustice, pour combattre la, la, la, la euh, le, citoyen africain qu'ils étaient. Donc je devais, de leur rendre hommage, les tirailleurs sénégalais. Oui. Alors civisme, par rapport, et je dis aux Sénégalais, euh, on ne peut pas être propre euh, dans, dans toi-même et ne pas être propre dehors. Parce qu'il l'a si bien dit, Titi. Il a dit qu'on va recevoir énormément de gens ici, au niveau des jeux, des jeux qui vont arriver. On va, beaucoup, beaucoup de gens vont venir ici. Il faut que le pays soit propre et il faut que notre capitale soit devant cette, cette, euh, cette idée de propreté-là. Parce qu'on peut... Et là, je m'associe avec, la, je m'associe avec Titi, avec Bill Diakhou, avec euh, la mairie de Dakar, surtout la ville de Dakar. Même le, président de la République, le, même le président Macky Sall, je m'associe à lui pour justement ce Time for Africa. Parce que le, le être propre aussi, c'est le Time for Africa. Parce qu'énormément de gens, je l'ai dit tout à l'heure, viennent en Afrique, viennent spécialement au Sénégal, il faut que le, pays soit propre et que la ville soit devant cette propreté-là. C'est pour ça, Madame Wardini, tous mes respects, Monsieur le Président Macky Sall, tous mes respects pour ça. Merci. Absolument, mais le président Macky Sall l'a dit, Madame Wardini l'a dit aussi, il faut que ce soit pérenne. Il faut que cette propreté-là, c'est pour ça que j'ai écrit ce titre, la civisme, il faut que cette propreté-là propreté soit une inspiration de tous les jours. Parce que avant, nos pères, nos mères et, et, et nos tantes et nos, nos, nos badianes là et tout ça, mais nettoyer les maisons avant d'aller au marché, avant de sortir. Donc il faut que c'est une culture, il faut que ce soit pérenne, il faut que ce soit tous les jours. Hein. Dis-moi Parce que je dis que l'éducation, c'est la seule et l'unique solution. Parce qu'un peuple qui n'a pas cette forme d'éducation-là ne peut pas aller de l'avant, Donc soyons propres dans façon de faire, de voir, soyons propres dans notre état d'esprit pour être propres dans ce Sénégal que nous aimons tant. L'album, les, sonorités, on vous a dit, c'est Mohamed Ali, Les, les sonorités, c'est un tout petit peu de l'afrobeat, un peu jazz, un peu aussi musique sénégalaise. Parce que moi, je ne peux pas faire de la musique sans m'inspirer de ma culture. Je suis profondément attaché à ma culture au Sénégal. Même, je suis connu mondialement, même si je fais du jazz, j'associe toujours cette gamme qu'on appelle la gamme pentatonique de chez nous. J'associe tous les temps cette, euh, cet aspect de la musique traditionnelle qui me tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur. Donc les, les, euh, les sonorités, c'est jazz, c'est un peu afro, c'est euh, euh, acoustique, c'est funk, c'est les musiques du monde. Parce que le Sénégal, c'est plusieurs cultures. Vous voyez les Djola, les Serrer, les Peuls, les Toukoulors, les Maniacs, les Bambara, tout ça, time for Africa. Yes.